bâtiment plus import export si Touba mbokk yi ak si ngeen lépp lu ngeen itteewooti si wàllub caro import caro ba gën caro ba nga xamante ni moom la ñuy itteewoo si mbooleem àdduna wërngal këpp jàppaleen ay caro yu ñu importé ba Espagne Italie Chine ci dëkk yi gën a mag mag ñu ràññee leen si wàllub liggéey caro dama ni mbokk yi bu ngeen ko itteewoo si même réew bâtiment plus import export du ca morom waaw ñoo leen yembal ay caro sol faïence Italie ay grès céramique italien ay faïence espagnol ay sol grès italien 40 sur 40 30 sur 30 60 60 ay grès poli italien 60 sur 60 carreaux de haut de gamme ay grès italien tout genre faïence venant d'Espagne 25 sur 40 20 sur 30 damani am nañu ay produits yu Inde 25 sur 37 wala yeneen gox yu àdduna wërgal këpp ay faïence pour seen cuisine bu ngeen bëggee mu taaru rafet loolu bâtiment plus import export ak sina moo leen yembal ngir seen taaru waañ 25 sur 37 lépp mu ci neex maktabatu Touba Darou Samba ki yemb na fi lépp jumtukaay ngir jaamu yàlla ay kurus si jadd ay yëre yiw yu baax a baax nag fi la fekk baax lu ngeen ci bëgg moo ngi fii si maktabatu Touba Daaru Sam am nanu ay parfum yu neex a neex bàyyi ko si àdduna wërngal këpp ay sikki Amérique sikki Guerlain ay parfum yu jëm si saafara bu ngeen bëggee ay moolu xasida mool asnan wala mool Italie Talla Diagne Daaru Minam xasida waaye tamit yemb na fi plastification photocopie en wala noir et blanc bokk yi gannaaw bu ñu sante suna borom ñi nga xam ne moo digal jaamam ñi ñuy wut àndandoo te àndandoo dañuy wut ñu tànn ko gannaaw bu ñu sante suñu borom moom subhanahu wa taala julli ci yonentam bi borom jikko yu kawee noo ngi baal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla na nu yàlla boole jéggal tomb bi ñuy fàttalante dañu koy tënk ci aayat suñu borom bi mu wax ne yéen ñii nga xam ne gëm ngeen amuk suñu borom gi ak yami àndal na ngeen teg seen tànk fam leen ko tegloo te wut àndandoo àndandoo ja di wut nag na doon koo xam ne ku dëggu la ci pas-pas ak gëm yàlla du ko kooj ci dara yaa ayuha alladina amanu ittaqullaha wa kunu maa saadiqin àndandoo nag ak lëngoo dañoo niroo ànd ak lëngoo dañoo niroo suñu boroom nag buy tegtale baatu àndandoo lay wax waaye su dee lëngoo nag maanaam bu nee àndandoo assaadiquun lay wax almuttaquun lay wax waaye su dee lëngoo nag xariin la koy tudde almuttaquun mooy ñu ànd ak yàlla ñam tuddee ña ànd ak seytaane yal nañu ca dugg àndanoo nag kenn ku koy soxlawut ci nit ñi amut bu fekkonte ne kenn dana ko teg nee na soxlawu ko xanaa mu doon yonent yi bokk te ñooñu kenn ku ci nekk bu ñu la nettalee ay jaar-jaaram am na ñu sësoon ci ñoom rëkk ñoom daan àndal ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi sëñ bu mag bi di wax ne ayaa xaadimal muxtaari laa tansa saxbahu fa man yansahum fal matxu matxun muxatau noonu la yàlla bind nit amul kenn ku mën a dem moom kepp yàlla moo séddale mayam yi séddaleeg may nag lu yéeme la ci dégg ci dégg séddale lim nangu mooy ñëpp tolloole waaye yàlla séddalewul day maye mayam yooyu nag ñam sa may ñëpp tolloolewuñ tam ëpp lente nañ waaye taxut nag kenn mën a taxaw fee ne moom lam yor doy na ko sëkk ba du ajagoo kenn ku mu àndal kii de soxla li kii yore fekk mi ngi nekk nekk lu ne gàññ koo xam ne ka muy soxla walam yor yorul dara lu toll ni lam yor waaye keetam ma ngay soxla nit ca lam xam doonte kuñ suufeel la ci ni ñuy tëdd ni ñuy tëgg askan yi waaye téewul mu ne guun ak li kii am solo lool ci ab juddu soxla kon ba ñuy yëj yàlla nañu ci yàlla musal di ñaawal yónni gi yàlla yónni yónent bi sallallahu alayhi naan alxuraan ji ni feese ak balaaxa ak bayaan bi kenn mënu cee dindi dara jot sëkk di wàcc ci koo xam ne boo ko bind la woon autour mënu ko bind loolaa ko tax a mat moo tax ñu xam ne li muy wax jógewut fi moom aw dànk kese lu teewoon mu yónni enzim bi nekk Makka wala bii nekk Taif lawla nuzila hada alquranu ala rajulin min alqaryatayn azim yàlla ne ahum yaqsimuna rahmata rabbik ndax li yàlla di joxe ku ne di ca am ndax ñoom ñoo koy séddale wala yàlla ko séddale naxnu qasamna baynahum maichatahum fi lxayaati dunia wa rafana baadahum fawqa baadin darajat liyattaxida baaduhum baadan suxriya wa rahmatu rabbika xayru mimma yajmaun lii nit di am suñu boroom nee na mooy séddale kenn ku nekk ak lam koy jox kenn ku nekk nag lam ko ko lam koy jox soo xoolee li la yàlla jox loo xool la kee yor ba nga di ca teg baat ndax moom moom la sob aaya boobu dajale na lépp kon lañ cay dégg mooy amul kenn koo xam ne mën na gën a xam nit ñi lépp ba tax ñu di ko topp te fekk daray taqwa nekku ci jëmmam yàlla ñu ci yàlla musal xam-xam bu bari ba xam lu kenn xamut du tax ñu topp nit wala ñu def ko àndandoo wërta tax waaye it bari alal lool ba gii jal kese wërta tax ñuy def àndandoo nit ki waaye ak pal lu mu kawe kawe wërta tax nit ñi topp ko kese kese bu ënt ak taqwa waaye yax bu rëy aw askan it kese kese kese kese yu buut nit fenn ba tax ñu war koo topp su fekkee kooka dara taqwa ko ci ñàkk taqwa nag weesu wut yàlla ne penku la kooka ràngoo yenn ci may wax ni ba tax mu naan du penku soow la yàlla duñ seet musa kon nit war naa seet bu baax ki muy àndam yàlla nee nag ki ñu war a def àndandoo mooy koo xool xamoo lu mu la gën a bëgg loolu yàlla kese bu dee ku la gën a bëgg xam-xam bàyyi ko day xam dara ñi ki des xam leneen wa qul li man yaddaci ilman wa waaye ku lay jaay alal it dana romb saa bu jógee këram di dox dana romb lu bari lu mu xamut ku ko moom te moomu waaye ku lay jaay dara ji it léeg-léeg ñu ne ko taxawal ba diw jàll waaye ku la jaay aw askan it nit ko rek ci aadama ak awa mënu ko teg faw fan lay fekk kon boobu ki ngay def ànd na na doon ku la gën a bëgg yàlla gën laa ragal yàlla rek léegi nag suñ jamono farfar la mu ci gën a bari farak koo xam ne lu mu def rek na la kooku du àndandoo xariin sax lay tudd ndax ci toolu seytaane lay léegi yàlla ñu ci mu musal waroom xam-xam yi nee nañ suñu boroom dafa jox yitte àndandoo ba bi muy nettali ñi ko fekke wutoon ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jóge makka ci ndigalam di dem madina am na lu mu ci tudd tudd ca àndandoo joo xam ne lu mën a xew moo ko way ànd du farfarloo id yaqulu li saaxibihi la tahzan inna allaha maa Euh, am na nañu wax ne sax àndandoo mi ngi mel ne toxu saa boo déggee diw toxu na moo njoolaayam ba ak wala gàttaayam ba wala xeesaayam wala ñuulaayam ba ñoo ànd dem buy tuxu lépp lay àndal dem loolu moo tudd àndandoo am na nit ñu am maqaam fa yàlla ba mu feeñ ci nit ñi ñu jàppe ko ko mu doon ko la ko ko jox du dara lu may àndandoo yu dëggu ca lañ ànd ak moom te saa bu bëggee jàdd ñu ne ko yaa ngi jàdd nit ñi nag léegi silmaxa mooy jiitu njàccaar topp ca te njàccaar loolee topp ci ginnaaw silmaxa dañ koy naan sa ñëw ko ne yaa ngi toppal sa na su duggee ñu pax ñu ñëpp ñu ànd ci dugg yàlla ñu ca lam waaye am na ko git bu dee xam-xam la nawee nit am na ko alal la ñuy nawee nit am na ko alal la ak daraja la ñuy nawee nit am na ko aw askan la nawee nit am na ko mu jékki-jékki di bàppe ko jóge ca kaw di xatar bi ko ba ne dér fi suuf yaxam yépp damm bëñam yépp buur gëñam yépp buur la ko ko teg mooy ñami àndal ñuy ay xar xarin ci moom dañ koy rafetalal loo xam ne kenn waru koo wax sax ñu ne ko lu rafet la wax nga lu rafet su dee lu mu def ñu ne ko def nga lu rafet kooku nag day mujj mbiram lu ko taxoon lu jóge ci yàlla tàggoog moom ndànk ndànk ba mu ne tóoj lu dese dàq yàlla nañ ci yàlla ko sam sunu borom subhanahu wa ci boppam moo ne di leen seet àndandoo tey moytu xariin wax na ci alxuraan ne ku fi mës a ñëw rek di ab yonent yàlla wàcce na ko boole ko ay noon yoo xam ne ci la ñuy xame ak yonentam ay noon yu bari pexe tam am kattan loole mooy tax ñu xam ne li muy wax du ay waxe boppam li muy def du jëfi boppam nee na ñooñu nag dañu am ci nit ñi am ci jinne yi bu dee ci nit ñi gis day def lu mu wax ñu tàcc ko ne ko noonu la de wala ñu fottasu bu dee ñuy fottasu ñu fottasu bu dee ñu tàcc ñu tàcc bu dee ñuy yuuxu ñu yuuxoo ko yuuxu ko am na yuuxu yoo xam ne euh, soññ nekk ci li doon wax la mooy sar la rek waaye nee na loolu yomb na xam xoolal koo xam ne lu mu wax rek ñu ne na yàlla na doon qaala allahu qaala rasul mooy fi muy waxee ne wa kadalika jaalna li kulli nabiyin aduwan shayatin al insi wal jinn yuxi baaduhum ila baadin zuxrufa al qawli gurura wax ju rafet rek mën naa rafet nii ci kaw neex a dégg ci kàddu gi waaye lépp ay wor la ku ko ku ko gëm wóorul ku ko jàpp yàqu yal nañ ci yàlla musal nee na kooku nag ña topp sa gannaawam dañoo am gàllankoor ci gëm ne bis dana ñëw ñoom ñépp ñu bokk leen àtte ndax bu ñu gëmoon ne bis dana ñëw sa kanam ñu bokk leen àtte am na yooy kenn bu sa ànd ak nit ki moo tax mu ne wali tasga ilayhi afidatu alladina la yuminuuna bil axirati wali yardaw wali yaqtarifu ma hum muqtarifu nee na nag àndandoo ju baax ku mel na mu war a mel teg tànkam ci taqwa ak ku lëngu ak nit seen wuute yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy lii nee na di toog ak di ànd ak ku teg tànkam ci taqwa te mu dugg ci moom mi ngi mel ne ku toog ak ku yore bitéelu gët laj ko lay bu génnee ba xeeñu mën na laa jox nga xeeñu su la joxul nga xeeñu it boo fa jógee dangay nga a tàggoo ak xetuk laj ko la waaye nee na xarin nag koo xam ne da ngeen lëngoo kepp mi ngi mën ne toog ci mbaarum ministre métallique loolee mu upp di di di di baxal di lakk weñ nga soo fa yàggee ay ferñeent dana dal lakk sa mbubb wala nga mujj tàng jiir te ku la gis dana xam ne ci mbaar moom a nga jógee ndax xetuk weñ ngaa lay jàpp misaal am na ñu daan gor matt xar matt ko xar fellit yooyu cay jóge yëgut sengoor lañ ko daal tudd amul ku munta dal ku fa taxaw mën na la ku fa taxaw rek mën na la moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne innama mathalul jalisi saalixi wa jalisi suu ka xaamilil miski wa naafixil kiir fa xaamilul miski imma an yuxdika wa imma an tabtaa minhu wa imma an tajida minhu rixan tayiba wa naafixul kiiri imma an yuxriqa thiyaabak wa imma an tajida minhu rixan xabitha kon boog nit war nay xool bu baax ki muy àndal ki ma njëkk a wax moom la yàlla di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naa ko wasbir nafsaka maa alladina yadcuuna rabbahum bilgadaati walasiyi yuriduuna wajha wala taadu aynaka anhum turidu zinata alxayaati addunia wala tutic man man agfalna qalbahu an zikrina wattabaca hawaahu wa kaana amruhu furuta muy lool sa bakkan bii tey seet ñi ngay àndal mu mel ni ab laaj la jub ñooñu ñooy ñan mu ne ko mooy ñi nga xam ne guddi ak bëccëg foo leen fekk jëm yàlla ji dong lañuy ñuy wut si fi yow dëddu àdduna soxlawuñ ca dara waaye bul mas a geesu mukk koo xam ne kii ab xolam léeg-léeg mu sikki sàkk ba xam amul yàlla gi wér na sax loolu la nga ko teg mooy dafa topp bakkanam ba bakkanam mëdd pas-pasu gëm yàlla kooku nag mooy àndandoo mooy lënkal mooy koo lëngool képp di dem suñ nee waxtu julli jot na mooy nañ xaar tuuti muxtaar sàngam gudd na wala nañ àggale bala nit ñi tasaaroo wala boog nañ gaaw ndax diw ñoom dañoo yàkkamti bala ñoo diw ñoom a yaweeku loolu yàlla taxatut waaye am na ay bayit yu gàtt yu ko sëriñ bi tënk ci ab téeréem boo xam ne nahju qadaa il xaaj la tudd nahju qadaa il xaaj am na ci lool moo ko wax am na lool ci waxe ñeneen la ko jële waaye jenn wax jee rek xam-xam la ku ko mën a wax baax na am na fu ñu wax ne wala tusaxib in aradta suxba da safahin aw xasadin aw raxba sooy wut àndandoo waxuma koo lëngool de àndandoo demal seeti koo xam ne xel mu ne cocc la yor xel mu ne cocc rek ni koy mën a xamee mooy koo xam ne taqwallaahi ma nga ca moom waaye bu mu doon ku dese bu mu doon ku añaan bu mu doon koo xam ne lu mu seen bëgg ca kooku mooy ki nga xam ne moom koy àndal la waaye bu fekkee da ngay wut grand place it fooy faral di waxtaane ci na ko seet bul dem foo xam ne fii dañ fay ñàkkal fayda diine dañ fay nëbbu sam xel ba doo xalaat jëm ci yàlla wala tujalis gayra man bihi tuzaad diinan wa aqlan abadan tanal murad fa axbaru bi anna mal maru ala diini xalilihi xadiisan nuqila loolu xadiis yonent bi sallallaahu alayhi muy wax ne al maru ala diini xalilihi fal yanzur ahadukum man kii moom da ko gën a jege ku ñu wax Uday ibnu Zayd al Ibaadi mi ngi ci nax ju dafa wax ne jël la ne di wut koy àndal waaye daf koo def farata ne ginnaaw nit ni ñi faw nga wut ñooy ànd waaye na doon ñi gën ca nit ñi nag soo ko defut danga daanu ci kàmb ànd ak ka nga àndal yéen ñépp ngeen maax daanu ci kàmb ida kunta fi qawmin fa saaxib xiyaarahum wala tasxabi al arda fa tarda maa arradi an al mar'i la tasal wasal an qarini fa kullu qarinin bil muqaaribi yaqtadi li tax mu tudd fee sax saaxib tudd fii qarin saaxib mooy ko baax ki ki nga xam ne mi ngi teg tànkam ci waa ab jotaayam doo fa déglu yàlla nee na yonent bi nee na wala ñu baax ñu nee na yam ca du seet loo xam ne bu yàlla wala bu yonent moo ko waxee nam ko soobee mu yér rek di wax am na ñoo xam dañuy yér di wax am ñu yëg di wax loolu nag moo ëpp suñu jamono dañuy yër di wax lu ñu lu ñu yër rek doy na leen demewut noonu bokk yi am na téere yooyu ña ko bind boo waroon seet seen cosaan doo ko xam mi ngi mel ni naan ca bu yàggoon tuuti ku tubaab yi ne noo tudd di yor bindukaay bëgg a bind aw turam bëgg koo fichier mu ne ko muudu la tudd moo tax ñaan muudu muudu yi mu ne xanaa yéen ñëpp ay muudu ngeen kon kon jamono yooyu wër ab muudu ku tudd muudu yo gis ko yomb ginnaaw ñépp muudu lañ tudd nooy xam ne muudu am na téere yooyu day wax ab safaan ji ko jëmale ci ñu baax baaxul soo ko jàngee defe ne téere xam-xam la ba mu doy la léegi tey nga taxaw di wax nit ñu baax ñu loola soob te fekk tegu ko fenn lu da ngay yër di wax rek day dal nit itam ci yonent yépp aleyhimu salaatu wassalaam Euh, yër di wax moom ak yëg di wax day am te yëg di wax nag moo gën a bari mën nañ laa wax téere bañ ko jëlee waaye su ma jëlee misaal rek bu ma bëgg tooñ dama naan diw al Baghdadi diw al Baghdadi ñaata lañ ñu dëkk Baghdad ñëpp diw Baghdadi lañ tudd diw ak Dimashq yi ñëpp ñu dëkk Dimashq noonu lañ tudd diw Makkaawi yi moo leen ñu dëkk Makka noonu lañ tudd noonu ñu dëkk Makka noonu lañ di waaye kon bokk néew ma ñooñ ñoo bind téere yi dama ko misaal ci moodu moodu léegi rek li tax mu tudd xarin mooy nit ki nee na bu laaj ci moom dara dama laaj rek xarinam xarin nag am na lu ci yàlla wax ci alquran wa man ya'shu an dikri rahmani nuqayyid lahu shaytaanan fa huwa lahu qarin wa innahum moom seytaane moom la yasudduunahum an sabil wa yaxsabuuna annahum muhtaduun xam naa ne anis sabil du taxawukaay waaye dama koy dogg par benn ndax mu neex a jàpp loolu alxuraan bañu ko wa innahum la yasudduunahum anis sabili wa yaxsabuuna annahum muhtaduun dañuy lëngu ak moom bu demee kaso ñu rocciku buñ ne ko xamoon kenn ku nee na du man bu faatoo am na ñoo xam duñ ko jaale ci te moo ne yoon moom jaaroon rafetoon na ci ñoom jekkoon na ci ñoom defe woon nañ ni ku farag diw far ngaa ak loolu ci àdduna lay amee waaye bu àllaaxira xata ida jaana am ñu jàng jaana qaala yaa layta bayni wa baynaka bu'da al-mashriqayni fa bi'sa al-qarin nee na bis buñ teewee fi sama kanam yàllaay wax kenn ku ne dana moroomam su ko xamee nii danaa soreeg yow ni penkook soowu soree tey it yàlla na ma yàlla dimbale tey jii ba ma soreeg yow ni penkook soowu soree kon bokk àndandoo am na lëngandoo am na yàlla nu yàlla tànnal ci coobareem ñi àndal te yàlla nañu yàlla musal ci lëngoo lëngoo mooy seytaane te asheytaanu yaiduhum wa yumannihim wa ma yaiduhum asheytaanu illa gurura asheytaanu yaidukum alfaqra wa yamurukum bilfaxsa di wàcce foofu sunu kàddu di ndokkeel daara ci boppam ci ndam di daara am amaat ko ren naka jëkk daara musa tàggoo ak ndam day am yu ràññiku rek waaye bokk yu loo gis ci réew mi daara ko fi def bu ñu demee ba naan dëkk sàngam ci gën a mag ci Sénégal la bokk bokk ñu ëpp lu ñuy fay lu ñuy bokke ci réew mi daara fa jaar boo gisee dëkk boo xam ne it mbooloo dañ fay jol jol yi jëm at mu jot gis nañ ko ci gàmm gis ko ci màggal gis ko ci xew yi ñu woote yépp ci Sénégal foofu dégg ñuy woote daaraa daaraa fa nag kon ndam lii nga xam ne surtout góor gu baax kookee di sëriñ jëmb xarit si moo ko am ren fan yii rek daa dolli ko daal daa am rek ndax téere boo xam ne wala fa ko bind ñu mool ko mu tasaaroo xawma ci bu jiitu téereb sëriñ jëmb xarit si boobu suñu Fallu Mbàkke topp ci gannaaw bi xaamidun loo bari lool muy téere yoo xam ne ci réew mi lañ ko bindee déggaate gu ma nag yu leen rax ci réew mi bariwaat na fi lool ñu bindaat ay téere waaye loolu lépp ba ndamul daara tàmbale yàgg na ñun nag am nañ mbett ci ne Sénégal alxuraan ñoru leen lislaam ñoru leen bokk yi gañee nañ fi bu yàggutoo lañ doon xëccoo ci Cameroun mbedd mi kenn munta dem loolu lu mu doonoon ab pot pot bu xonq gis nga pot boobu benn benn nit ñoo ca ñoo koy jariñoo waaye ñoo ñee doon xëccoog pot boobee ak ña leen doon teertu mbedd yépp fees dell ku ci ak ruuxam rot dana soxla daara kon yeyoo woon nañ lool mbedd yi fees dell la ko tàmbalee fa mu doon wàcce ba ba muy àgg fu mu mën a jaar yi dafa war a fees ñoo ngi xool nag ba xam danañ jël alal ju bari di ko wërale Sénégal di ko won waa dë waa Sénégal waa wala déet ndax loo xam ne juróom fukki réew ko bu ko ab sénégalaise jëlee ak Sénégal fi ñu teg jigéen léeg nga dégg ñu naan boo doon góor nga dégg jigéen ju koy bàkkoo sax naan man du ma jigéen ko naan su ma doon ko kon ba léegi si dafa am bët bu ñuy xool boo xam ne bii lislaam joxoon na ko jigéen bu yàgg jàng alxuraan man koo mokkal man koo tari ba ba di sa am ndam yàlla xamu si góor jigéen kon ñi ngi xool ba xam danañ ko defal xaafila bu mag maanaam daal mbooloo mu bari moo xam ne dañuy dañ koy yëgal ci oto muy wër Sénégal nañ doon defee pot boobee waaw wala déet yàlla nu yàlla defal dégg topp te mu musal seytaane ak bakkam yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin fii si maktabatu Touba Darou Sam ñu ngi fi wecceeku carte de membre Touba sa kanam nuuru daaray nii mbokk yi gaaw leen gaaw woote si numéro yii di 77 233 24 39 76 673 18 83 wala 76 661 09 19 maktabatu Touba Darou Sam mooy barab bi leen yembal lépp lu jumtukaay ngir xam-xam jàmm yàlla wala ay yëre yu yiw a yiw lépp leen fi fàggu ngir seen bànneex فسر بي يا قدوس متليا علي waaye nag mbokk yi ñëw leen ngeen découvrir suñu ay lumière am nañu ay contact dernière gamme ay lumière intérieure wala extérieure am na nañu ay spot sol escalier seen salon fépp fu ngeen mën a bëgg si biir kër gi bu ngeen bëggee lumière ca kaw kaw ca kaw mur ba ak si leen bâtiment plus import export mi ngi si Touba Daaru Xudoos jàkkaarloog marché bi ah mbokk yi nee naa lumière décoration ngir seen chambre seen salon seen balkon liñ la si defal amul fenn waaye nag ay ventilation assortie de luxe ah xanaa moom lii lu bees dama ni tàq ma ni ay miroir seen salle de bain ngeen bëggee ay meuble de salle de bain e lii nag moo xarala kenn ku dul bâtiment si mbooleem xeet waaye nag baignoire deux personnes ba si une personne mbooleem xeetu robinet ngir seen salle de bain ngir seen kër seen waañ fépp daal si biir kër gi robinet yi yemb na waaye nag réservoir cinq mille litres ba cinq cent litres tànn sa bu neex lay doon bu ngeen bëggee nag peinture jàppaleen ni ñooy ne numéro un des peintures peinture canadien ya gën a gën a gën baax loolu ngeen di peinture avec étanchéité bâtiment plus mani moom la ñëpp di wër ndaxte li leen indil si ay matériel yu xarala nee naa la suñu ventilation si mbooleem marque am nañu ay windi ay kulom tom kulom tom ak yeneen xeetu produit ay cabine douche chauffe-eau nag waaye nag ba ci gën a neex mooy automatique léegi la ndox mi di tàng même pas une ah mbokki Sénégal mbokki Touba ñëw leen ngeen découvrir bâtiment plus import si Touba ñoo ngi si Daaru Xudus jàkkaarloog marché bi mbokk yomb ma tax ma ni bâtiment plus import export notre force c'est la qualité